Welma boutique la bière des VIP mbégte mi tàmbaleeti na à partir du 27 décembre jàpp 27 janvier Welma boutique nekkati na en promo moins de 30 40 50 ba 70 pour cent ci ay njëgam loolu laal Welma wàññil la ci dara costume de classe Welma la fekk baax lacoste yu raar chemise yi nag ay chaussures basket chaussures classiques accessoires yi nag du fa jeex montre parfum ceinture ak ay yeneeni bagages accessoires sportifs yi moom moom ma nga fa ne gàññ fees fa dell ay maillot blouson crampon kon gars yi yéexati ñàkk la de daw leen gaaw Sacré kër 3 ci ginnaaw boulangerie jaune bi ci koñu Mbaye Dieye Faye Welma boutique mi ngi foofu wala ngeen woo ñu sax ci suñu numéro de téléphone yi 77 555 21 67 wala sax nga woo ñu ci beneen numéro bii di 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam ñi ngi amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen ki ñu toogal nag yaakaar naa ni amul fu ñu koy présenté ti ci réew mi ndax li tax ñu xam ko mu ngi ci bay waaram saa su ne muy buusita doomu Géejawaay doomu Tivaouane Peulh maa ngi lay siyaare mais ziar naa la ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant waa géejawaay bu baax waaw di sant tamit surtout waa waay waa Tiwaan Pël tamit amu seen fay maa ngi bu baax baax di bëggee tamit képp kuy bëggee bu Siteu rek ak lu làmb yi waaw maa ngi bëggee surtout ak lu làmb waaw parce que bu Siteu ku ko xam-xam ne maanaam waaw leen lépp lu ma mel rek làmb moo ma ko def daal kon damay santaat làmb bu baax di bëggee axlu làmb bu baax képp kuy bàyyi xel làmb rek maa lay sant bu baax quoi di nuyu tamit Lamine li TV sama xarit ndeysaan Lamine maa ngi koy nuy bu baax di loo nuy Omar di nuy tamit sama mafia bi yow gis nga sa secteur ma fa sama mafia bi gars yi ma jaaxal Grand Dakar ñaari tali fa am ay boo ñoo ko diriger ay Alpha Ndiaye ay Demba ay Zena. ay Zena waaw sama xarit Zena moom ndeysaan moom moom moom moom moom danaa ma yow buuse yow rek laay topp barke Serigne Touba day am booy xam ne daa yow bu yow la ñuy topp. li nga defal booy laa xam. non booy moom maanaam dañ ma bëgg rek te yàlla tax te xoolal defalu ma lan man xaw ma lan la daal. waaw maanaam mais nit di nga dund loo xamante ne ni geste boo xamante ne yow ñii nañ la bëgg te yow doo xam sax lan la man xaw ma ba tey sax lan la lan laa dund lu waral ñit ñi jox ma bopp daal. Grand Dakar xam ma benn tali bi di nuyu sam fans yëpp nag di nuyu tamit vie my life di wax ne gars la le 18 mars bi waa cante gi foofu Grand waaw di di si woo jàmbaar yëpp nag surtout waa mafia bu Siteu waaw di woo waa Grand Dakar bu baax a baax di si woo Modou Mbaye ak suma papa Bekaay Mbaye ñoom Grand Dakar lañ dëkk lépp foofu la chaque année maa ngi fa waaw le 18 mars waa mafia bu bi ñëpp nañ ko waaj vraiment laa suma doom yaay cant gi di bëggee gaa ñoom yi mat saa xama ñoom papa benn tali bi gaa yëpp dañ fay ñëw ñoom xumóor yi xama móor di nuyu gaa daal su ma limee ñoom mat saa <laughs> bu Siteu l'international yaakaar naa ne bu bu bu bu buñ koy woowee l'international bu nuyuwee waa ñaari tali ak waa Grand Dakar wàcc na parce que fépp ngay daj waaye da ngaa jóge ci komba jële ci defet ni bàyyi naa bëre bu ñëwaat jëlaat komba bi ngay wax bàyyi naa bëre ci ban moment nga tolloon parce que lu ñu lu ñu lu ñu ràññee la jamono ji ci mbër yi bàyyi naa bëre keroog maa ngi koy wax sama émission maanaam léegi lamb toll na foo xamante ni maanaam mbër bu ci daanu rek mooy loolu coow lu day bëri léegi lambu moo toll foofu dafa toll si guddi yoo xam xamante ni mbër bu daanu rek coow lu day bëri maanaam da dégg lu nekk loo xam ne yow da nga daan toog sax nit moo wax lii da ngay toog sax yow di koy dégg di koy gis di koy dund affaire yi day metti waaw maanam yow doo doo bëggati si dara daal si bis bi yow yow jour boo bëree ba daanu si ngoon googu day garaaw daal maanaam entraînement sax da nga naan yow dootoo ko dajati maanaam te lamb ku xam daj li daj si lu metti si entraînement préparation bi xam nga dugg fii génn fii nga dem lu ndaw ñàkk loola xam nga gis naa Ada Fass toog na bàyyi na làmb gis nga gisaa naa tamit bébé bis mi toog na bàyyi naa làmb xam nga soq tamit toogaan na bàyyi naa làmb xam nga mooy loolu buusita gis nga maa fi njëkkee sax maa ko fi njëkkee moo tax ku nekk génn naan bàyyi naa def làmb maa leen njëkk a bëre toog ne bàyyi naa def man lépp lu ma def Sénégal dañ siy dugal seen loxo am gars yi nekk si diaspora bi ñii di ma woo di ma proposer xaas naan ma ngir yàlla wax ñu loo bëgg ñu jox la nga bul bàyyi yow boo bàyyee ñun fan lañ jëm ñun maanaam man dama ñëw si làmb yokk man ñëw ma ci làmb am lu ma wàññi ci làmb dama ñëw am lu ma yëkkati ci làmb am lu ma yokk ci làmb diaspora bi maanaam day am ñoo xam maanaam day maanaam man ni may demee ci làmb day na neex ñoom loolu day ñuy dundal fi ñuy toog la ñuy toog am na ñoo xam ba ñu ngi ba ay diaspora bi. li nga bopp nga yor. barke Serigne Touba ñëw yor sama fugg boo xamante ni fugg de jeunesse boo xam dafa nekk ci man déggoo ma de eh waaw doo xool <laughs> yaa ma gën a xam maa ngi gis am boo yoo xam ne jéem a sàcc samay affaire. non doo xool moom moo moo. non doo xool sama yëf la. boo ko jëlee wallahi sama yëf la mais. man maa bëgg man maa nekk ni koo xam man dama bëri slogan baaj la fi baan la te am na yoo xam sax génnagul. génnagul non génnagul déggoo ma de. kon sa combat bi incha allah ngay fas yéene génne yu bi lépp luy slogan loo lu ma dencoon la mu koy génnee te bu ma ko génnee Sénégal TikTok bi yow gis nga day toj. te yow gis nga Bou Siteu lépp lu mu dugal loxo la verre nu muy tojee dëkk bi xam nga verre sama lug la. waaw képp kuy sol verre rek xam nga di bëggee képp kuy takk verre nag te verre jàpp la rek xamal da ngay toog xaar xam ni verre sama yëf la xam nga loolu dafa garaaw xool loolu salansi bi xale yi jigéen ñi. xam naa ni si sol verre ñoo xamante ne vraiment jàpp leen. jàpp na leen ku si mel ne Anta Ndiaye Raka Aziz Ndiaye Anta Ndiaye. jigéen ñi de góor ñi. mais jigéen moom mu dem mu jàpp. non góor ñi moom moo loolu ku si mel ni Paul rek. Paul bu Aala Ndiaye defal na ma verre xam daf gi ay Ama Balde ñoom ñëpp ay Moussa Ndoye sànq la ma kii envoyé vidéo am def moom tamit bu naaj mu jàpp ko mbay guy gi man mbëree mu bëgg barki Serigne Touba Mbacke xam rek yee. <laughs> am na solo waaye nag buñ fi doon waxtaanee sa carrière daf duñu fi jógee parce que ndaanaan nga bëri nga ay victoire comme ni ñuy gisee sa ay defet comme ni ñu koy gisee tamit ci mbër yëpp fi mu toll nii làmb dafa neex jax na ba noppi mi ngi boy mais ñu ràññee le 15 bi ñu jógee ñaari ndaw bëre def stade bi comme ni ko VIP yi di def ñu bëre ñëpp kontaan avant tout ñaari mbër yi muy Zarko ak Ada Fass noo leen gisee. waaw Zarko ak Ada nu ma leen gisee muy maanaam waaw bis bi gis nga pare nañ ko ni ñu ko waroon pare jaay nañ combat bi xam nga ba combat bi xam nga rek ñu bëri yaakaar nañu sax tension da si am mais gis nga jaamu ji yàlla ñëw def lépp xam nga waaw ñu bëree ko ci nag ci fulaak fayda xam bëri ko si jom te parce que Ada Fass ku wax xam ne gis nga kero ba mu jugee ndakaaru ñëpp a jóg génn ko xam nga mooy loolu. am na daal combat bi la am na daal fu mu ko gën a yëkkati daal waaw te combat gis nga ampleur bu mu amoon Zarko tamit nekk koo xamante ne moom yaakaaru Grand Yoff la waaw du ma la nëbbu Zarko dafa tar si lamb de. parce que Serigne Touba Zarko dafa tar si lamb mais ndaanaan la ak lu mu voyagé woon nekk Europe toog foo xam nga xaw a yàgg mais ndaanaanu bërekat a ngi noonu parce que Zarko boo xoolee combat yu mu bëre yëpp ay moroom lay dajal ay borom doole xoola combat moom Modou Anta moo tax combat moom Liss Ndiago bi Liss Ndiago tamit di ko wax di ko encouragé waa di ko wax ne xam nga laamu noonu la yee mooy loolu fii booy fi daq bëri ñoo jóge si defet xoolal lu ma la wax xoola xoolal adro berki Dembo Ndiaye xoolal ay buusita ay aada ay ñeneen ak ñeneen booy fi dàq bëri laa wax ñoo jóge si defet mais lamu noonu la waaw nekkul chaque jour ngay ñëw mu neex daal yenn saa yi moo loolu fii képp kuy bëre da ngay daanu wallahi mais nañuy teg ful la ak fayda si xam nga jaay combat bi te gis nañ moo loolu di féliciter Zarko bu baax a baax a baax. félicitations yi boo doon boo amoon lay wax Zarko loo koy wax. waaw Zarko moom lu ma koy wax rek muy di ko wax ni maanaam moo loolu de façon li mu def rek yombul Zarko dafa wàcc de dafa wàcc si suuf jël aada faas waaw mu ngi mel ne rek mu wàcc suuf comme mu ngi mel rek comme moom mu wàcc jël Bou Siteu comme noonu la demee rek. Bou Siteu da ngaa boole sa bopp da ngaa boole sa bopp ak Ada Fass. bon mais Ada Fass instant maa raw ci làmb parce que Serigne Touba boo ëpp ci làmb maa leen ci làmb. nga ni def arène. Ada Fass 2017 bu muy ñëw place Fallou Ndiaye naan premier combat am arène maa moom ñoo waroon bëre bañ taxaw photo mu ñëw ne man. 2017 fekk na nga bëre. man fekk na ma bëre quatre combats Ada maa ko jiitu si làmb man bëre naa quatre combats toog samay quatre victoire Ada Fass di soog a dugg si làmb ñëw Fallou Ndiaye moo loolu maa ngi moom combat bi dafa yàqu maag Ardo ñoo ko bëre Ardo combat bi ñu bëre maag maag kii Ada Fass ñoo waroon bëre rek. Ardo bi bëre Liss dem. Serigne Touba ba ñëw ba place Fallou Ndiaye taxaw fa. Ardo moo la daanoon. non mujj ñu bëre. Ardo premier défaite am Ada Fass ko jox yaakaar naa. Ardo premier défaite am yaakaar naa Ada Fass moo ko daan. waaw waaw man maa ngi Ardo bañ bëre à part Ada Fass la bëreel. ay ñun ñëpp ay morom lañu Ada Fass maa ko naa trois quatre combats muy soog a ñëw. ñu waroon bëre xam rek am nu mu demee ñu photo ba pare après gars yi dem xool xaw ma am nu mu demee daal Fallou Ndiaye woo ma ne ma nee nañ xaw ma a xaw a sàccante poids affaire yooyu noonu. non moom moo xawoon sàcc poids gars yi looloo tax combat bi yàqu. mais buñ bëroon guddi yi da ngay dégg daan Ada Fass da ngay lim si defetam da nga si rek ma léegi boo amoon conseil boo koy jox moom ak lu mu war a dolli ci carrière am lan lay doon. waaw lu ma koy wax rek di ko wax ne moom ndaw la quoi coow li bëri na trop gis nga di ko kii sax gis naa fan yi mu takk jabar Espagne xam nga <laughs> di ko nuyu di nuyu soxnaam si nekk foofu maanaam gis nga ci combat la jugee xam nga am dégg moo loolu chaque jour nga dégg ay wax mais di ko wax ne moom bu mu déglu yooyu xale la man maa ngi am naa jabar am ñaari fils mais ñu dañoo war a teel a takk jabar. kon d'accord nga ci li mu teel a takk. non d'accord naa ci kay. Arafa dafa war a teel a euh, Arafa avant bii nii sax waroon fekk mu am jabar bu yàgg te parce que jabar nekkul da nga koy am xama mooy loolu. jabar boo ko amee da ngay gën a mala sam waaye gën a mën a jaamu yàlla mais imagine toi amoo jabar amoo daa ngay fëndax fëndax la doo xam fooy taxaw di fréquenté si ay milliers yoo xamante ni mooy loolu mais boo amee jabar yooyu yëpp day arrêté man maa ngi nii ka mooma gisati si yooyu te parce que dama am jabar ba pare xam nga métier bi ma nekk métier noble la quoi waaw kon képp fépp fu ma nit di gis rek war nañ ma gis foo xam ne fu ma nit di ñu may nawloo. da ngaa sa empreinte. waaw te dama xoolal rek instant dama marqué sama empreinte instant oto rek moo tax sax xam nga sama niveau xawul kawe tuuti. wallahi oto kese moo tax sax mooy loolu mais. mais gars yi war nañ laa jox caabi de. barke Serigne war nañ ma jox caabi ku ci mel ne ma benn grand bu baax boo xamante ne nii xam nga di ko waa nekk ba daaro xam nga di ko nuyu bu baax moom ndeysaan moom am na am na si lu ñu waxtaan quoi hmm. waaw DG bu mag la ko waa bëgguma sax di teel a fësal turam waaw ñu koy wax pa paabu waaw moom nit ku baax la quoi. ñu bëri jàpp nañu ni pikin dafa nekk ci yoonu tas. non pikin moom mooy loolu. nee nañu amaa Balde moo waroon bëre ak Modou. Modou blessé Ama jël giri. combat bi di waaye ñëw Ama blessé. Modou wér. Boña daan Balla. tasati seen yaakaar yéen war a dugaat parcelle pour yow loolu war na mën a indi na mën a indi coow ci làmb. non non loolu moom waru mën indi coow ci làmb maanaam comme li ma waxoon keroog rek maanaam ñaari camp yi nañ waxtaan rek ñu xool combat bu gisee maanaam loolu xajul sax Pikine parce que Serigne Touba Mbacke xam rek maanaam làmb moo toll léegi foo xamante ne nii xam mooy loolu. am na ñoo xam ne maanaam dañuy bëgg a sax génnee làmb suñu maam la làmb xamoo ñun ñooy moyante xaalis waaw nañ xam ne maanaam ñun ñëpp ñoo far daal waaw te mbëri xam rek at yi tamit du la fi xaar waaw mais ñu ngi ñaan daal combat bi yàlla képp ku koy bëre rek ñu xam ñu waxtaanee ko seen biir daal moo gën a xam rek balaa réeroo di am te parce que Ama Baldé moom ku ko xam ne xam ne moom Boy Niang moom nit mënul dugg seen diggante mais wax ji nag dina bëri coow li mais ñoom ñaa doo leen dégg mu ko ñu wax kon képp ku siy wax rek wax si lu rafet te xam ne Ama Baldé ak Boy Niang xam nga ñoo bokk nday ñoo bokk baay daal. li ma la fàttee laaj Ada Fass ak Zarko dañ leen aj un an bi nga yëgee loolu automatiquement en tant que jeune ban réaction nga waaw bu ma ko yegee moom affaire yi métti na ma trop te parce que dama xam ne dama ko xoolee comme sama bopp quoi maanaam nga nekk si yoon nekk si yoonu làmb xam nga nga bëre ñu dagg sa xaalis ma dégg ñu ne aj nañ la mais aj bi pour lan la. kon kay ñoom Balla Gaye lañ waroon njëkk aj sax. yee booy maanaam ñun mbëri mënuñu yar sunuy supporter waaw ñun mun ñu yar sunuy supporter da yenn saa yi da ngay da gis ñoo xam ne dañuy ñëw sax def loo xam ne sax yow ñooñu supporter wuñu la léegi ñoom CNG dañuy gis ni yow sa camp xam nga foo la damee cinq seize sànni ñu ne kon kii moo loolu maanaam dañuy vigilance lu mel noonu yenn saa ni dina ñëw stade te du supporter kooku ñëw damu fa seize dëkkul sax ko ñu mbër bi léegi yow nga jàpp mbër bi rek aj ko si loo xam ne ay seize yu ñu sànnee waaw mais service d'ordre yi la la ñuy jëriñ stade xam nga zëm yi alkaati yi la la ñuy jëriñ xam nga civil yeeg lépp mooy loolu stade léegi la nii sax mais xoolal ay temps stade Demba Diop lamb deewee defee ndaw ñu ne mi taqala ell yi mais léegi loolu amatul sax lambo lamb mais dañuy waaw maanaam ñun mënuñu yar suñuy supporter daal dañuy damu sees xamuñu ba xam dañuy bégee wala bégee wuñu yee ok léegi yaa ngi dëgmal combat objectif bu Bou ci làmb laa bëgg a xam lan la. waaw objectif Bou moom muy maanaam xam nga nekk si benn affaire boo xamante ne xam nga waaw benn zaaru waaw am na daal si yeneen yu ma nekk yoo xamante nii zaaru fondation boo xam man maa ngi dox quoi. fondation lan la waaw. waaw moom suma gannaaw la quoi moom chaque jour soxna soosu maa moom si la ñuy waxtaan Paul suma doom yaay. non bu instant yi nii am na si lu mu nekk quoi c'est parce que am na lu muy am na lu muy préparé ñu war see liggéey ndax xam nga moom fi la dëkk waaye mm-hmm. amul doole waaye mu ngi dimbale surtout jeunesse bi ñu si bari da leen di jàppale ba si booy si kaso beeg yëpp mënul xëy suba ba ngoonte booy woowuñ ko bilaay bu dee dafa yor benn mille francs seen poche wala lu mu mën di yor da leen koy yónnee mm-hmm. xam nga tamit kon kooku dafa jar a jàppale quoi léegi benn femme daf ma woo mu ñu nekk amerique Amérique la nekk quoi dafa yor foofu benn fondation si Amérique léegi si la ma ne comme que yéen da ngeen di dimbale foofu booy si banlieue bi comme que yéen a ngi taxawu booy ak yooyu man dama leen bëgg a soutenir nekk ak yéen partenaire si fondation boobu noonu mu indi fondation bi Sénégal maanaam day am fii am fee mais ñaari fondation yi ay partenaire lañ quoi pour sociale rek jàppale jeunesse beeg yooyu. xam nga ñu mën a génn si ñu nekk booy bañuñ liggéey booy bañuñ liggéey mais dañ dul am ku leen jàppale quoi ku leen jàppale lañ dul am léegi daal moom ñu ngi doon liggéey ñu ngi liggéey si loolu incha allah te bi day taxaw nii bientôt bientôt xam nga ñu mën a orienter jeunesse bi xam nga dugalaat leneen teen bopp yi daal hmm. yaa ma gën a xam am na fi njariñ euh, dëgg la xale la mais mën naa ne kilifa la ndax kilifa du question de âge quoi. ndax moom des fois day wax ak booy booy dinañ ko dégg moom lu mu métti métti bu wax ak yenn booy booy dinañ ko dégg man noonu keneen noonu xam nga genre yooyu tamit dañ leen war a gën a gën a gën a appuyer daal pour ñu gën a sawar si seen liggéey xam nga di jël booy xam nga di changer dugalaat seen xel yi leneen xam nga booy xool tey booy xaaj bi yëpp mooy loolu changer nañ ñu ngi ñëw nànk-nànk waaw lépp si moom la jaar ndax booy tey boo leen wooyee ñëw xam nga am na nooy waxeek ñoom nag dinañ xam ne kii nii daf maa bëgg après ñoom dinañ jéema def li nga bëggu quoi li li tax booy respecté ko nag loolu mook ñoom la mook ñoom la xëy na moom moo ko dund ak ñoom moo tax ñu naan nit kenn du ko beddi kenn du ko xeeb doomu aadama ak nu mu mën di mel nag bu ñëwee si yow bu fekkee dafa yor melokaan boo xam ne nii jaaduwul yow fexeel dindi loolu si moom. pour man doomu aadama loolu la loolu la mën loolu la war a mënal moromu nitam quoi moom nag jàmbaar la yàlla na ko yàlla sàmm rek. waaw mais loolu noonu maanaam xam nga Bou Siteu nekk na loo xam nekk na koo xamante ni tey jii man ma yem rek si làmb kese man war naa dox si social xam nga sama booy am na booy yoo xam ñu ngi si kaso bi xam nga di dund loo xam lu metti man sama sama sama numéro bii nii wallaahi chaque jour façon numéro bu nekk mooy woo sama booy nekk si prison bi. xam nga rek yan saa yu affaire yi day metti foofu man lu ma yor ñoom laa koy envoyé barke Serigne Touba Mbacke xam nga rek kon man war naa dox si loo xamante nii su ma gisee ni tamit nit nit koo xam nit ku baax nga nekk ba Amérique soxna su baax tur bi laa fàtte hmm? madame nekk nit ku baax xam nga mu yàgg waxtaan ak man si lu mel noonu kon lii dafa jot ma exploité ko daal waaw dafa jot ma exploité ko barke Serigne Touba Mbacke bu ñu demee ba nga nekk ci làmb yaakaaroon ci làmb nga am beneen buntu ubbeeku ce qui veut dire que làmb war nañ ko a a jox cëram parce que bu Siteu du roi des arènes du tëdd fi lu ñu dem di ko dénk yooyu nga war a xam ni kon am na fu mu boppam te dara mayu ko xoolu dul ñafee mais à part làmb da nga suivre actualité réew mi non loo gën a ràññee si réew mi waaw jabar yi bari na de politique loolu gis naa sax démb politicien bu woote woon fee Kër Massa Ousmane Sonko. Mhm. xam nga gis naa ak yeneen ak yeneen yoo xam te ni mooy loolu. waaw ñu ngi koy suivre bu baax ay actualité xam nga mhm. moo mais lépp luy am rek yàlla na yàlla lépp doon jàmm daal. Hmm. te yow da ngay moom politique ko wax xam ne Bou du politique. Mhm. yee ay mos naa voté ay voté yi moom damay voté moom. xam rek. waaw damay voté moo loolu damay. voté ban école man école bu nekk Gunaas laay voté. Ah. waaw wala ay côté ay école yu kii rek comme yu gars yi di voté noonu rek. Ah. Mhm. léegi leneen li ma la bëggoon laaj jaar nga école. man waaw jaar naa école jaar naa tamit jàng naa franco arabe laa jàng. xam nga rek franco arabe laa jàng waaw école di ko boole waal ak arabe bi quoi ngay jàngi école boo dem àll. mu nekk genre franco arabe noonu la demee nag. ban galaat mhm. nga bàyyee non franco arabe la <laughs> franco arabe moom amul ay école boo bàyyi wala classe boo amul ci franco arabe. franco arabe da ngay jàng rek da ngay jàng arabe di jàng arabe ku xam arabe ah, ah, amul ay fii laa bàyyi amul classe bi laa bàyyi moo tax franco arabe laa jàng barke sëriñ fer nga waaw. ay saar yu bëri ay saar yoo xam jaar naa si jaar naa tamit si français dama ko jaxase woon daal yee mais maanaam lamb moo gën a yàq sama jàng ak saret xam nga rek man. léegi nag nga fas bu tudd Iliko. waaw amoon naa benn fas bu gaaw boo xam fas bu Iliko la tuddoon barki Serigne Bamba Mbacké fas boo xam moo gën a gaaw ci géejawaay ba géejawaay daj waaw maanaam waa parcelle waa Kër Massar nit ñi lañ daan jugee di ñëw ba géejawaay pour. bëgg rek man ma jaay sam sama fas barke Serigne Touba fas bu gaaw. ana fas bi léegi. fas bi instant daa mu jee génn àdduna xam rek <laughs> di ko ñaanal yaa ma gën a xam yàlla xaare ko si àjjana fi daw si xam rek maanaam fas boobu dafa nekkoon fas boo xamante ne xam nga waaw maanaam ndaanaan la woon daal. Paul mi xam na li ma koy wax bu baax Paq Baye Moussa gars xam nañ xam nga rek maanaam fas boobu man ba léegi nii samay dosaan ñi ñi naa buuroo lijjantiwaat fas tuddee ko iliko barki Serigne Bam fas boo xam lu ma ko wax da koy def. wala déggaloon su ma si yéegul ni su ma taxaw lu ma ko wax da koy def su ma ko nee màmmal day tëb màmm dem yoonam. barki Serigne fas boobu nga jàngee woon màmm. wallaahi fas boobu gaan waaw mais yàlla baax na daal bëgg naa tamit amaat beneen fas tuddee war ko iliko daal te parce que mooy loolu. yeah noonu la demee. takk nga soxna yaa ngi ci sa ménage. gis nañu ay nit yoo xamante ne ni tamit ñu ngi takk jabar ñu ngi jéem a nekk ci seen ménage ku siiw jël soxna lan moo ko war ci néegu sëyam ba mën a garder wala conserver mariage am parce que wala sax pour bañ na dal ci waxu yenn nit ñi naan sëyu ku siiw du yàgg. dëgg waaw xam nga rek maam dafa metti daal xam rek nga nekk koo xam te ni nga siiw ba pare xamoon nekk marié xam nga loolu lay metti daal xam nga rek maanaam dootoo di sa bopp daal comme ni nga moomee woon sa bopp avant ngay dugg si say xam nga dootoo di sa bopp waaw yenn saa da ngay bëgg a dem fen sax xam nga mooy lool du doo doo dem yooyu yëpp mooy loolu mais yàlla daf ñoo defte te bi ñu nekk koo xamante ne nii xam nga waaw maanaam su ma soxla maanaam maam ay gaañ lañ quoi maanaam moom xamante nañ te parce que xam na ne man doxuma si lu ñàkk fayda barke Serigne Touba Mbacke waaw moom xam na ne maanaam man si lépp lu may dox rek moom xam na ne man si dëgg dox daal. yee moo tax gis nga bo mooy loolu fu ma neex la ma fay dem lu ma ko tàggu mooy loolu ma senegal Sénégal ban club mooy sa club fii ci senegal ci football. si Sénégal fii. Sénégal ba mu des championnat Sénégal wala nawetaan non nawetaan sax dañ ko ciy génne parce que nawetaan boo ko championnat. championnat Sénégal ban club mooy club bu Siteu. waaw sama club moom ñëpp xam nañ ko muy AS bi. waaw si Pikine bi xam ñëpp xam nañ ne moom boobu mooy sama ASC. GFC. mais GFC du ASC Pikine AS dafa am Guédiawaye FC am. non Guédiawaye FC maanaam ñun suñu Guédiawaye équipe bokk suñu ASC mooy loolu. di sant la Diop bu baax. DG Lonase gis nga fan bis bul bu mu ñu jëndal pour supporter yi xam nga. loolu xam nga rek loolu dafa rëy si ñun quoi bis boo xam ne suñuy photo ñu ñoo fi nekk ñun supporters yi bis bi tey bu romboon léegi waaw di jàppale jeunesse bi waaw suñu papa Lat Diop ñu koy sant bu baax waaw gis nañ daal nu muy taxawee mooy loolu xam nga rek ba pare ñun gis nga barki yàlla maanaam man Bou Siteu man jeunesse bee ma ñor man nekkul damay. tànk yi sa turandoo di teg yow ci yooyu tànk ngay topp sànq gis naa ko mu wax ba jooy ndeysaan gis nga sànq rek maa koy seetaan Siteu waaw moom lépp lu muy wax moom si xolam la nekk ndax Siteu bu dem man Siteu nga bu ma gisee muy jooy dama ne man maa ngi soog a gis Siteu bu tuur xewal man a ma dafa ma ma ma dafa ma metti quoi te parce que moom li muy wax si xolam la nekk moom moom li muy dund noonu man dama koy dund fii si biir géej waaye man am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne bu Siteu mu ngi àdduna li si biir te yoruma dërëm barke Serigne Touba Mbacke waaw man mënoo man moo loolu man jeunesse bi ma ñor man damay wax li nga xam te ne nii ñi nga ne ay kilifa lañ nekk si biir géejawaay su mel ne suma papa la job ak yeneen autorité yoo xam ñu ngi si biir géejawaay bi maanaam ñoom nañuy jàppale jeunesse bi sëppal fii nii léegi-léeg après nga xool suuf amoo siis bi gis nga moto yi foofu booy yëpp Lat Diop moo leen jëndal moto ñuy liggéey yenn booy mu jël leen lonaas ñuy liggéey te ñun loolu lañ doon ñaan te instant booy bëree ngi job man sama booy bëree ngi job si kii Lat Diop moo leen utal liggéey parce que Serigne Touba Mbacke ku si mel ne Omar Mbaye moom mooy dox si affaire yooyu daal waaw boo yëpp a ngi liggéey man si yooyu laay dox man man nañ jàppale Zéna man duma ma jóg di dox loo xam sama intérêt bopp man sama man góob ma loolu man kuy jug di woote loo xam sa intérêt poos waaw man góob ma loolu man dama bëgg man képp kuy jug di taxaw sa gox bul sàkketoo maanaam defal loo xam te ne pour ñuy jàppale jeunesse bi nit bu xewlee dara xam nga fexe ni suñu la jóg dugalee loxam jàpp si te parce que ñun ñëpp xam nañ affaire programme waaw day laaj autorité bu génnee alalam jàppale la waaw te loolu nag ñun dañ ko manqué fii trop dañ ko manqué de. jilaahi ay géejawaay tool dañ ko manqué ay nena taal yi ngay dégg fii géejawaay dëgg la ak a baax mais man sama combat bi daw ci moom ba sonn aw ma jotuma ko te ñoom lu na xew la nañ ko fii ma jàppale leen mais ay nena taal yi ni ñoom dañoo war a dugal seen loxo si suñuy affaire ñuy am combat ñuy jàppale xam nga yoon la ñu jàpp yee ay ameel ay dara yi nii ngay gis nii yëpp mooy loolu ñoom dañoo war a dugal seen loxo suñuy affaire mais gis nga ñu day am combat ay amel ay dara yi du ma leen gis te loolu noonu di yoon te ñoo ñëpp xam nañ ma bu baax am na fu ma jaar ak ñoom parce que Alxuraan ak yeneen autorité yoo xam ne ñu ngi si biir géejawaay bi xam nga dañoo war di def social waaw man man géejawaay léegi kenn dootul laam-laame booy bi buusita wala dara parce que ñëpp xam nañ ma ñëpp xam nañ si li may yëngu kon dafa jot man su ma amee combat autorité yi dugal soon loxo bu baax waaw nee na taal nee na taal moom maa ngi koy interpellé nag di ko wax ne bii mooy ñaari yoon xam ma may am combat may daw ci moom te day gis dama koy envoyé message dama koy woo téléphone mais mënu ma ko jot. xam nga te loolu noonu du yoon te ñoom xewle nañ fii si biir géejawaay bi man ñu gis ma ma dugal ci sama loxo bu baax te du xaalis parce que kon su ma amee combat autorité yi ma war a jàppale. waaw mais suma papa la joo moom maa ngi sant bu baax waaw sama combat bi moom wéetuma si daal waaw ak waa diaspora bi gis naa ni ñu ma taxawoo ni ñu ma jàppalee xam nga waaw man ku ma képp ku ma jàppal la may taxaw gërëm la te parce que ñun loolu lañ fi am waaw te dañoo bëgg tamit kuy dëggal boppam ne da ngay def social mais diw daa baax diw daa baax rek te yow boo amee bis yow du la soutenir mais loolu da ngay nax da ngay sa bopp ngay nax barki alxuraan waaw kon gars dañ ma war a teg loxo daal jàppale ñu bu baax a baax a baax wax nga ma sa équipe ba pare nag mais ah. mhm. wax nga ma sa équipe ba pare mais ñi ngi dégg ñu ne en mois de mars le président wala eh, dañuy woolu Ousmane Sonko mhm. woolu Adji Sarr ñu dem jàkkaarloo ak juge bi mhm. te boo fàttali ko mars bële passé ci la dëkk bi amee woon ay métti métti ak ay jafe-jafe bu mu ndaw ndaw kilifa la wax nga ko fi sànq boo amoon message booy lancé jeunesse bi surtout jeunesse bi lu doon. waaw jeunesse bi moom lenn rek laa lancé quoi waaw affaire boobu tam maa ngi koy dégg affaire affaire tribunal kii yooyu noonu moom mois de mars bi Sonko bi ak kii Adji Sarr bi waaw loolu moom dañ ciy ñaan jàmm rek di wax ne maanaam comme yii passé nii gis nga yii passé nii ñaata moor ñaata moor quatorze moor quatorze moor presque te xam nga loolu noonu ñaanatuñu daal mu amaat fi. te xam nga waxantuma laa la ñuy ñuy programme jour bu ñu ko war a def maanaam ngay teg ngay ngay programme loo xam te ne yow bu ay nit war a ñàkk seen mais loolu imagine toi lu ma la wax ba ñuy wax na nga jàpp si bis maanaam nañuy xool dëkk bi tamit nañ nañ nañ xool nuñ lijjantee problème boobu xam nga ñu man bakkan yee ma man bakkan yi rek a ma man jeunesse bi rek a ma yéem barki sëriñ Touba jeunesse bi kese maanaam nañuy xam nga te ñun xam rek képp ku si ñàkk sa bakkan ñun ñoo perte barki sëriñ daal te loolu maanaam waratul am senegal daal ñun war nañ dépasser Sénégal maanaam Sénégal war war war na gën a mën a dépasser niveau am fi côté bii nii barki sëriñ Touba Mbacké xam rek yee maanaam yii di am nii yëpp xam nga war nañ war nañ dépasser niveau bi senegal war na dépasser niveau fu ñuy fu ñuy préparer benn affaire boo xamante ne nii xam ay nit war si ñaax seen bakkan barke Serigne Touba Mbacke. ñenn ñu ñu ne dem wuy ji rek est ce jar na coow. waaw maanaam Sonko la ñu woo rek est ce que jar na coow. mais loolu noonu xam nga rek war pour pour man warul jar coow quoi. bay bay ay nit nar see ñàkk seen bakkan ñoo xam suñuy doomu réew lañ nekk ay sénégalais xam nga te alkaati yi ñuy nar a jàmmarloonteel te alkaati yooyu ñun ak ñoom benn lañ amaana tëni bi la nii mais buñ simee tëne bi wallaahi munoo xam sax kii alkaati wala alkaati parce que da ngay xam ne ñun ñëpp benn la ñoo yem fenn sa yàlla xam nga kon maanaam nañ nañuy bàyyi loolu xel xam ne ñun ñun ak gendarmerie ak ñun ñëpp ñoo bokk benn ñoo am na si ñoo xam ne sax ma la sama waay tur yi benn la parce que Serigne Bamba Mbacké kon war nañ xam ne daal ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ. am na doomu Sénégal lañu. le président Macky Sall Ousmane Sonko juge yi ñu xam ne ñoom ñëpp ay nit lañu yàllaa leen dàq juge moo leen dàq àtte te ci yoon la koy teg nañu teg lépp ci yoon incha allahu rabbi balaa ngaa tàggatoo dafa mel ni sa copain dafa am lu mu ci bëgg a taw bi laay wax rek comme li fi nga fi nga daanalee nii léegi. waa di waxaat di waxaat ak waa di waxaat ak jeunesse bi rek surtout jeunesse bu banlieue bi euh, nañ bàyyi seen xel bu baax nañ bàyyi seen xel bu baax. te xam ne violence maanaam amul njariñ quoi ñun nag si banlieue bi lañuy yeewoo ñun ñëpp fi lañ dëkk fi la ñuy yeewoo ñun jàmm la ñuy woote jàmm la ñuy woote ndax tey buñ jàmmaarlooyee suñ biir suñu biir la rek ñu ni nen la ñun ñëpp on de des ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñu bàyyiwaat xel lool te xam ne tamit président de la république nekkul kenn du ko nommer dañ koy élire askan wee ko fal kon jarul xeex jarul xuloo nañ bàyyi ba élection ñëw askan wi bu dee dañ koy falaat ñu falaat ko bu dee dañ koy folli ñu folli ko pour man loolu mooy dëgg mooy yoon ñu wàññi violence bi xam nga ndax bu ñuy reyante suñ biir ay sénégalais yu reyante seen biir la ah, ay dëkkandoo yu reyante seen biir du ko jar du ko jar jeunesse bi nañ ànd ak seen xel ku ne mën nga ànd ak ki nga bëgg a àndal mais jarul violence jarul dara bu voté jotee ku ne dem votel ki ngay votel euh, coow Ousmane Sonko bi ñuy wax tamit nañ ànd ak suñu xel daal ak lu mën di am lu dul jàmm daal jàmm ko gën bu dee dañ koo convoqué bu demee buñ ko dégloo bu dee deful dara nañ ko bàyyi mu ñibbi bu dee daa def dara yoon def liggéeyam population bi nañ maandu si yooyu xam nga loolu affaire de justice la te justice su réew kenn du ko foye du question dañoo farfale wala dañoo farfale mais nañ bàyyi bu ko yoon bàyyee mu ñëw kon ne politique waaw jàmm na ñooy moo gën ñu si reyante suñ biir gis nga événement yi paase lu ne xew na fi du ko jar kowaa te ñun ñëpp ay sénégalais lañ te bu jeexee après sénégalais yëpp ay toog di rëccu ñëpp lay metti kon suñ biir la nañ bàyyiwaat xel bu baax daal di ñaan jàmm si réew mi yàlla def fi jàmm xool yëpp ànd ñëpp juboo jàmm am. waaw lu ma si teg comme ni mu ko waxee rek xam nga jàmm daal waaw jàmm Sénégal daal lañuy ñuy ñaan. barki sëriñ Bamba Mbacke waaw yal na yàlla def lépp xam nga waaw li li gars yi di waxtaanee nii yëpp mu nekk loo xamante ni xam nga lépp waaw ñu ñu xool solution daal niñ ko waxtaanee jàmm am Sénégal waaw te parce ñun waaw bu Siteu daal jeunesse bee ko ñor daal barki alxuraan. waaw en tant que amateur moom Ama Balde Modou laa bëgg. te parce que xamul tax ma xool loolu man Ama Baldé instant dama ko yërëm de waaw Ama Baldé ko yërëm Ama Baldé xoolal rek cinq ans xaw ma six ans ngi nii muy topp benn combat ba ba léegi mënul bëre ba mu bëre Papa Sow ba léegi bërewul waaw ba ba léegi dire na xam nga coronavirus bi jaaroon fi ay science xoolal xoolal at yooyu noonu yow Ama Baldé toog ko xam nga te kooku rek loolu maanaam tardement la tardement la parce que yàlla loolu mu ngi mel ne nga yàq ay waa yàq ay millions yoo xam te ne mooy loolu barke Serigne Touba Ama Baldé du ma ko yërëm te su ma soñoon moom mook Modou daal. yeah te parce que dal dafa metti trop waaw cinq ans nga toog ko gaan mooy loolu si bu mag nga war a bëre titre roi des arènes waaw te loolu noonu rek maanaam dafa rëy daal ngay bëre koo xam mooy roi des arènes waaw te Ama koo xam-xam ne champion la waaw man daal dama ko yërëm daal te man bëgg naa buy bëre mu bëre moom Modou Lo te parce que ama daa jeexal ama moo loolu wallahi ama dama koo yëram dama jeexal na ama jeexal na tax barke sëriñ Ba mu Mbàkke kon gars dañ ko war a jàppale daal yee mu fexe bëree yee waaw Siteu Gris Bordeaux moom mooy loolu combat bu neex la Siteu Gris Bordeaux moom loolu tamit gis nga loolu laamu ji neex la loolu laamu dàq ko barke arxuraan waaw yàlla min bi rek ah non Siteu la dëgg moom neexul si man quoi non neexul si man wallaahi xam nga rek non non maanaam Siteu mbëru slogan la te la dëggee du mbëru slogan xam nga rek moo tax man combat neexul si man mun na neex nag si ñeneen mais man moom combat neex ba pare combat xam nga rek bugguma ko daal. non non maanaam bugguma sax du neexul si man boog wër na yàlla neexul neexul neexul combat bu neex barke alxuraan ah waa ñu lay jaajëfal di la bégee bu baax waa di sant tamit gars yi siy jàpp waaw di sant Jamil Jamil Samb maa ngi koy bëggee bu baax waaw borom nuuru laa waaw Jamil moom ndeysaan nit ku baax la waa bilaay Pape bu Pape Pape Bafu Cissé moom ko présenté borom Pikine Daaru Pape Bafu Cissé maa ngi koy sant bu baax ñoom Pape Kan gars yi nekk foofu Dominique waaw di bëggee waa Daaru bu baax a baax a baax waaw suma suma DG bi Pape Bafu Cissé maa ngi koy sant bu baax a baax di nuyu suma papa Lat Diop xam nga maa ngi koy sant di nuyu waa diaspora bi ku si mel ni Pocho maa ngi koy sant bu baax di bëggee Asmalik borom accord voyage koo xam te ni gars yi nekkoon fii Géejawaay ñu si bëri la yóbbu waa accord voyage Asmalik maa ngi koy sant bu baax a baax a a baax a baax billaahi booy kii fii yëpp waaw moo leen jaay bee ñu dem waaw nekkul koo xam te ni maanaam lu wóor lay jaay daal waaw ñu ngi jaay ay bee avion yu wóor waaw France Italie foo bëgg a dem New York xam nga di nuyu waa New York bu baax ku si mel ni Papis moom doomu yaay Xadaafi la Papis maa ngi koy sant bu baax borom Amérique waa di nuyu Xaddaafi di nuyu Biggi Sop waa Biggi maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waa di bëggee Asmaali bu baax borom Accor Voya di nuyu tamit waa Pikine waaw waa Pikine mënuma jug foofu te parce que foofu dafa am ay grand yoo xam ne maanaam dañuy bëggee bu Siteu ba ubbil ma fa 100 pour cent ku si ñoom Zal ak mafia bi gars yi nekk si groupe whatsapp bi yëpp 100 pour cent bi di bëggee tamit Baara Gueye Baara Gueye maa ngi koy sant bu baax borom West Foire démb rek dama faa demoon maag benn doomu yaay Pape Gueye mu yëkkati xaalis bu bëri may ma ko borom West Foire waaw borom Nord Foire maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di bëggee tamit Bamba waaw Bamba maa ngi koy bëggee bu baax frère am la ñoom xaalis bëri démb lañ ma may ba pare solal ma si station bi plein essence parce que yàlla maa man damay sant gars yi man mooy damay dajak ndi léegi-léegi mu doon mbër am solal fii essence plein wala ma dajak si station yi mooy sol mu doon mbër am solal fii essence plein xam nga loolu yombul te loolu gars yu bëri maa ngi di ko dund ak ñoom waaw maanaam man ni may dundee maanaam man maa ngi dund jàmm daal waaw gars yi ñu ngi may soutenir gars yi baax xam nga di leen nuyu bu baax di leen sant xam nga bëggee Tony Ndiago tamit Tony Ndiago maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di bëggee tamit ay soxna yoo xam ne ñu ngi si ba si diaspora bi ay Bamba dëkk Massa Sam ñoom ñëpp maa ngi sant di bëggee tamit benn grand boo xam ne moom maa ngi koy bëggee quoi Pape ñu koy wax euh, Pape Pape Pape Diagne Pape Diagne maa ngi koy sant bu baax di nuyu tamit Fatou Guewel Fadou Guèyeul di sant tamit Bodi Bodi Guèye Bodi Guèye maa ngi koy sant bu baax Fadou Guèyeul am na benn affaire bu mu xew la sax la kii lo 11 lo onze mars bi waaw di si woo ñëpp nag waaw la 11 mars bi di nuyu tamit xam nga El Hadj Diagne El Hadj Diagne borom Bambay waaw maa ngi koy sant bu a baax a baax El Hadj Diagne borom Bambay moom ñoom maa ngi sant di bëggee waa diaspora bi ñëpp daal su ma limee mooy jub mais maa ngi bëggee gaa yëpp waaw képp kuy bëggee Bou Siteu rek maa lay sant bu baax a baax a baax. waa di bëggee waa axlu làmb ñëpp nag waa diaspora bi ñoom bamba xama waa jàmm gën yi xama waa di nuyu gaa yëpp daal wóor na sëriñ bamba su ma limee rek damay jóg mais maa ngi bëggee képp kuy bëggee bu sita rek maa lay safoo bu baax a baax a baax a baax Welma boutique la bière des VIP mbégte mi tàmbaleeti na à partir du 27 décembre jàpp 27 janvier Welma boutique nekkati na en promo moins de 30 40 50 ba 70 pour cent ci ay njëgam loolu laal Welma wàññil la ci dara costume de classe Welma la fekk baax la lacoste yu raar chemise yi nag ay chaussures basket chaussures classiques accessoires yi nag du fa jeex montre parfum ceinture ak ay yeneeni bagages accessoires sportifs moom ma nga fa ne gàññi fees fa dell ay maillot blouson crampon kon gars yi yéexati ñàkk la de daw leen gaaw Sacré kër 3 ci ginnaaw boulangerie jaune bi ci koñu Mbaye Dieye Faye Welma boutique mi ngi foofu wala ngeen woo ñu sax ci suñu numéro de téléphone yi 77 555 21 67 wala sax nga woo ñu ci beneen numéro bii di 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste